mooy lan fi ñu njëkk a tàmbalee mooy lan na fexe ba ci année bu njëkk bi gone gi na ci jéggi. toll nañu si juróom-ñaar fukki sëriñ daara ñu leen doon tàggat si wàllu pédagogie yoon wa gën a gaaw ngir ñu mën a def si xale bi xam-xam centre Iqra fii si Touba ñoo amal séminaire bu nu mel sëriñ maam sëriñ Dia di dellu si waat yi lay formation bi bépp métier ci adduna dafa laaj nit ki bala koo def ñu formé ko ci rawatina nag ku yor ay doomu aadama di leen jàngal di leen yar kon warees na leen a formé ndax gis nañ ne ci jamono. bari na loo xam ne mi ngi am ci daara yi buñ gëstoo ba xool ba def itit gis nañ ne li ko waral mooy ñi ñuy jàngale mën naa am ñu mokkal alxuraan waaye ñàkk def formation dana tax ñuy jëflante xale yi jëflante boo xam ne euh, laa laajut maanaam ci njàng maanaam li ñuy jëflante ñoom. sax jëmul ci njàng. formateur bii di Serigne Abdou Lahad Niang jàpp na ni kat modèle pédagogique bi ñu jëfandikoo ci formation bi wane na ay preuve yu am solo ay jeexintal yu baax ngir xale bi gën a mën a ràññee xàmmee am xam-xam mokkal ci li gën a gaaw a gaaw. formation bi tey mi ngi jëm ci nan la ñuy def ngir jàppale jàngalekat bi ci yoon yi mu mën a jaar pour mokkalal gone gi alquran loolu nag eh, yoon yi bari la waaye dañ ca ci lël bi léegi nag yoon yu ñaari yoon lañ ci jëm. benn yoon bi ci njëkk moo leen tuddee borom xam nañ ko sédd def ko ñaari xaaj muy tariqatu tawsi'il kulli ak tawsi'il kulli boo ko déggee mooy alquran jëpp ngay séddale def ko ay bind bind mooy li mooy leçon ci bi bi gone gi jël par jour. loolu nag euh, def nañ ko ci 767 cours war koo jàng moom gone gi ci maanaam ñetti at ak fukki weer bu nag bu ñëwee ci détails yi. day leer bis bu ne lam ci war a jël. naka noonu sax mi ngi nii biral nii. képp koo xamante ni doon nga sëriñ daara. boo defee formation bi di nga gis yokkute si yow. foofee sax ñu nekkoon sëriñ daara yi ñu jébbal suñu kàddu ñu ngi koy dëggal ne kat waaye gisalu ni kat tàggat bii de baax na loolu. waaw gis nañ suñu bopp bu baax a baax a baax macha allah yal na yàlla barkeel jàng mi rek defal ñu tawféex waaw macha allah waaye tey nag moom sama xam na ñu ko jàppale loolu si liggéey bi muy amal ngir mën a yokk bi gën a taxawu daara maam Serigne Dia dina biral ni kat yu si mel ni Serigne Makhtar Dieng yor daara fii si Touba ak it Serigne Makhtar Mbacke moom Serigne Modou Boussa Dieng wane bi ne lépp lu nekk ma nga ca seen alal seen xam-xam ak seen doole. ndax ah, lii lu ci waaye jariñu lu mu néew néew moom mii am na ca wàllam rawatina nag mu cey jëf kon liggéey baa ngi noonu ñu ngi sant yi sëñ Maxtaarum sëñ Modou Boussa Dieng ndax moom it jëf ju rëy la ci jëf ndax mii taxawaay bii mu am rek la am bañ demee wax ko ko daa doon yitteem mu bëgg ko lool rafetlu ko lool laata muy wax dara daa njëkk dugg ci biir néeg bi yëkkati ab ambuloo teg ci suñ loxo daane nag danaa leen jox ay teene yoo xam ne fa ngeen koy defee te danaa ko ànd ak yéen moom mii mu yëkkati 2 millions jox ñu ko ña ngay tàmbali liggéey baa tàmbali. naka noonu moom mi ñu tuddee woon bis bii di Serigne Makhtar Diène lancé na nag appel si mbooleem ku ko mën nga doon borom barke yi nga jàppale daara ngir taxawal Serigne bi sa fa nga féetee. kon maa ngi lancé boobu appel Serigne bi di ko joyal ci koo xam ni. wax dëgg yàlla yëg nga li la sëriñ bi defal ci dëkk bi te muy ak xéewal wax dëgg yàlla ñu bàyyi xel nag sëñ daara yi bu baax a baax taxawu leen waxuma na taxawu leen ci seen jëmm yi waaye taxawu leen ci fañ ne mooy seen mbaar yi alxuraan yi fexe ba mu jag seen wanag yi fexe ba mu baax ndax kat wax dëgg yàlla nit xëyul nekk ci lu gën loolu ndaje bi mi ngi doon xewee ci kër Serigne Mourtala bi nekk ci jumaa ji Serigne Mamor Mbacké liggéey bi itteel ko loolu rafetlu ko également yónnee fa tamit délégation bu am solo donte sax moo waroon teew waaye dafa nekk ci ay yitte.